haalaan bikum seen doxub ñaxtu ba mujj taxam takk der ya fañ leen a gàntal ñoom ndaw ku jégi ci Sénégal allah si du quotidien moo ñu ko xamal ndaw yi ku jégi fa ñoo waxoon ne démb ci àjjuma ji fa ñu yëngal ndakaaru njaay doxu ñaxtu waaye yëf yi mujj ta sotti de ayaw seetal takk dere ñoo xëy fajaru leen geetaru ca bunti université bu ndakaaru ndaw yi ba ñëwee na dañuy génn dox doxu ñaxtu takk dere na leen xalaamandir bàjjo xalaa xalaa xalaat du ngeen fi jaar ñu jàppante fa sànni wante ay xeer ba seen doxu ñaxtu bu mujj yàqu préfet feebu ndakaaru nag moo ko xaayee li tax mooy fañ bëggoon a foofu la d'accordut si du quotidien moo ñu ko xamal les échos yi nag kaay na ko ñi kay seen doxu ñaxtu ba ay léeboo nag lu pen la mu juta xam maam bay ñang nag jëwrin bokk ci jege ñaala mag kii la yàq doxu ñaxtu ba dugal na ca loxoom a yaaw seetal ndaw ku jégu bëri fa wax ñoom na leen bu leen dem bokk ci doxu ñaxtu bi afru caaxaan caaxaan la ba ndaw yu bëri mujj toog rawatina diiwaanu Grand Yoff te ndaw yu moom wal fajëri yéen a kaay ne ñaxtu yi ci Sénégal ku jegi di ko amal université bu Ndakaaru fa la yëf ya tàmbale ni ki démb takk dere ak ndaw ku jegi jàppante nañ fa ñeneen ñi nekk ci jàppante bu dul jeex mooy Idrissa Seck ak Macky Sall 24 heures yéen a kaay ñi ko xamal xeex bu metti ndax Idi fa fee bëgg a jëlee Macky Macky na ko fi ngund fi naa leen yeex doxal foy Idi na ko waa bala maa foy ma wax la fan yi ñun ku jegi yéen ngi daal ñu agressé loolu rafetut fa ñaaw te ñun ku jegi duñ ma sa nangu wote yi di ñëw 2019 yaag ñi bëgg loolu mooy am te mooy jëlee la fi Dakar Times mel ni kuraan man nag wax dëgg yàlla damaa yërëm njiit réew mi Macky Sall ndax xeex bi dox diggante moo ko jege ci wàllu communication wax Macky fa caa wéet parti allié yi koy jàppale ku mel ni Moustapha Niass ak Ousmane Tanor Dieng ak ñeneen ñi ni mel ñu ngi ne tekk tekkaaral kenn déggul ñu wax di défendre Macky déedéet yéen a kaay bi na pourtant nag ñoom Macky desalut leen dara jox na leen ay ndomba tànk yu bari ci seen parti wax bu jotee nañ dem ci rajo yi ak télé yi kenn si ñoom defut ko loolu nag dafa ñaaw ànd appale ko ci wote yi di ñëw du kenn ku may Idrissa Seck les éco yéen a kaay moo ñu xamal ne Idi dem na seeti maître El Hadji Diouf ñu waxtaan yeneen ñaar ñu waxtaan ba boo moytu danañ ànd ci wote yi di ñëw jàppalante mooy diggante Pierre Goudiaby Atepa ak Ousmane Sonko laas yéene kaay moo ñu xamal ne seen ànd ma ngay xañ de ndax Atepa jox na Ousmane Sonko siège am ba dalwaayam ba wal fajiri yéene kaay na ko fa koo mastawu ci dalwaayam ba gaañ na toj rajaxe ko nee na ko Sonko lii yëpp makki gaayam yi la fañ laa bëgg a tiital xoqatal la ngir nga deltu ginnaaw waaye bu leen faale ñun ñu ngi sa ginnaaw na ko hee waaye Ousmane Sonko fa mel ni yi mu fi Mamour Diallo weddi na ko na dara amut ca Amadou Ba nag tey gën naa dëggal li mel ba leeral na yëf ya aa yaw seetal Amadou Ba nee dëgg gi mooy bi tribunal sàkkoo ñu xayma alal ja deux cent cinquante milliards yoo xam ne la nguur gi fay bariwut kàddoom yaa ngi ci enquête yéen a kaay ba tax yéen a kaay bi ne Amadou Ba kay génn na ca tekk tekkaaralam ga wax na ci quatre-vingt-quatorze milliards sonko yi libération ne wax ji daal pour mu gàtt sonko na wax banque bi gaa yi xaalis bi ba séddoo ko Amadou Ba ci enquête yéen yàqal ko mën na leen a jural ñuy wax loo xam ne dara du ca dëgg te loolu dañ ko war a bàyyi baaxut vox populi na waaye léegi tey yëf leer ndax assemblée nationale danañu amal enquête ci 94 milliards yi ay mbiru bu APR moo ko xamle ba tax yéen a kaa bi na sonko ay mbir ma nga bëgg a taq suuf de société civile bi mel ni ku leen di tontu na ñun waxuñ assemblée procureur moo war a dugal loxom ci yëf ubbi enquête ñu xam fa dëgg gi féete wal fajiri mooy wote yi di ñëw sénégalais yi na seen xel dal léppay jaar l'observateur dëggal ko ne jëwriñ ji kay Aly Ngouille Ndiaye lépp lu jëm ci wàllu leeral na ko aa lu jege fukki milliards ak ñeent moom la ñuy organiser wote yi di ñëw lu tolloog juróom benn million ak téeméer ak juróom benn fukki junne carte électeur jox nañ ko seeni borom ñi war a wote Sénégal nag ñu ngi toll ci juróom benn million ak juróom benn téeméer ak juróom ñett fukk ak ñett yu toftal ñeent fukk ñett six millions six cent quatre-vingt-trois mille quarante ñooy wote ci biir réew mi ba tax a kaay ne diiwaanu Ndakaaru Diourbel ak Thiès ñoo gën a bëri ñu fay wote ñuy wote yëpp genn wàll ga ci ñetti diiwaan yooyu lañ dëkk bureau de vote yi nag toll na ci fukki ñeent yu toftal juróom benn téeméer ak juróom fukk ak benn wàllu jumaa ju mag ca diwaanu Pikine daloo nañu ko inauguré ko Le Soleil yéen a kaay ñu ko xamal ne askan wa nag jooy bëggoon li ni mel ëpp na juróom fukki at jumaa ja nag la fa mën a jullee ci ay doomu aadama tool na ci ñeenti junne ak juróom benn téeméer loolooy grande mosquée nag tàggat yaram Manchester United ma ngay toj Angleterre mbuqi na démbu Arsenal ba tax stade yéen a kaay ne bii mooy juróom-ñetteelu ndam yu Manchester United am bañ dàqee Mourinho kajji football ba léegi fa ñuy mbuqi rek niil a kaay jox kaddu Jules Balde may wane mbégteem yi Balla ba tax ma ngay cokkaas ak mbalee ñaawal waa parcelle nee na moom Jules Balde bokk na si ñi nga xam ne ñoo xeex jàpp ci combat bi ba Balla mbuqi Modou Lo nee na tamit am na promoteur bu bëgg a taxawal combat Ama Balde ak Gris Bordeaux man ma taxaw ci direct info bi tey xëy amal ab njàngat ci diggante mbëggeel li mën a defloo ñenn ñi ñu tàqali ko seen sago moo xam góor wala jigéen bay def lu defu wut a yow seetal benn xale bu jigéen nee na man sama ndey ak sama baay fañ maa génnee kër ga ndax benn xale bu ko bàyyi ma daan dem ba mbuur di ko fekki la tudd tudd xale bu jigéen na man it yàgg naa fàq fekk ki ma bëgg ba mu jaral ma sax joxe sama dund gi yaa ngi de benn xale bu góor paap nee moom it fa luy appartement yóbbu fa kam bëgg ñu nekk ndax jaral na ko soxna suñuy wax sooda nag nee na man ki ma bëgg fa may dóor di ma saaga lu ko neex mu def ma même bu may rey sax may toog rek du ma dem fenn ndax ma ko bëgg waa ma ne bu ngeen mu jàkk demu leen église xamal na yaa ngi ci pertement de